inclusive man boo waxee waxu élection inclusive inclusivité la seule personne à qui je pense. tu parles à, ah, tu penses à une personne. je, je, pense, à une personne. je pense à ne la je pense pas à une personne. je pense à des règles. règle bi mooy la participation ci élection nga nekk électeur comme nga nekk koo xam ne dañ ko bëgg a élire dañu ko war a garantir waruñu manipuler les textes pour le fair ma jox la benn exemple au Sénégal. dañuy voté dañuy ñëw yóbbu kenn procès ñu condamné ko juge bi waxul ne condamnation bi war na mën a entraîner que du bokk ci élection ñu dem jël benn loi électorale ñu décider ku ku ñu condamné sur telle chose telle chose doo bokk ci élection dem ba ci yokk ay article naan ku bo doo mën a nekk sax électeur changer modifier code électoral mais loolu lan la lu dul saboter loolu c'est une violation de l'inclusivité la règle simple c'est que bu ñu demee ci juge bi juge bi bu condamné nit moom mooy xool ndax dafa war a jël mesure complémentaire peine complémentaire bu juge bi décidé que dafa war a jox pen complémentaire mu ne kii de njaaxum bi mu def rëy na rëy boo xam ne bii waratul bokk ci élection waratul nekk électeur bu ko defee ñu tiré ci conséquence. et et c'est maintenant qu'il faut mener ce débat là ce waxuma ne léegi lañ koy mener j'étais donné un exemple. que problème mu inclusivité dafa nekk problème boo xam ne bii dañu yàgg a bàyyi politiciens yi ñuy manipuler code électoral bi pour dugal ay génne candidat gis nga li fi xew loolu la ñu ne on va le combattre di d'ici aux élections li ñu mën a modifier mënu leen modifier dara. waaw loolu c'est un pronostic loolu laa la expliqué. non xam nga yow foofu da nga da nga far. mais dafa ban far dafa am des règles yu yu régissent le fonctionnement du processus électoral. règle bu loxo temps à moins de six mois. assemblée mënatu leen modifier de manière significative. le cours du processus électoral. ça on on va modifier le cours du processus comment on va se battre. comment par exemple le cours du processus électoral c'est pas seulement la loi ce n'est pas seulement le règlement dafa am ay pratiques. dafa am ay pratiques politiques malsaines yoo xam ne yi pouvoir bi da koy def benn naka nga mën a ne da ngay def contrôle parrainage logiciel bi def contrôle parenage tu le conçois seul yow kenn yaa ko defar les autres ne sont pas associés xamuñu lan la loolu application informatique bi nga xam ne boo indee sa parenage ci lañ koy contrôler loolu mun leen ko changer. mënuñu ko changer mooy la. xam nga kañ waaw déglu rek non attends lu ñu mën ak lu ñu mënul kooku yow yaa koy. pronostic non attends xam nga kañ ngeen mënoon changer. je suis en train de vous donner des exemples de faits de yoo xam ne est des pratiques qui sont contraires à la beneen bi fichier électoral fichier électoral bi nga xam ne bii dañu leen nga jël un pourcentage du fichier yow joxuñu la ko. loolu foo ko wér dañ ko war a mettre à la disposition des parti mais joxuñu ko qui compétissent joxuñu ko.